waaw mais loolu moom dafa war war lu hommage sax war na ko mën a am tey dañ ko waroon a def yóbbu si stade fii aéroport stade bu rëy ak xëy na feebar bee tax ni mu demee la mais waroon na ko yóbbu si stade boo xam ni yaatal woo Sénégal yëpp ñu delloo ko njukkal gunge ko ba jébbal ko suñu borom. ah bés bi day triste na de triste na de mais am mbégte rek am mbégte xam nga yàlla moom bu décidé moom kenn mënu ci dara mais nu mu ñu bëggale woon bëggale ñu ko Sénégal en 2002 yàlla nag ko yàlla bëggale noonu moom it yàlla na bëgg noonu sa àjjana fi daw si ja parce que en de Sénégal gépp bég na yàlla na ko yàlla dolli leer sa mu nekk kontaan nañ ci trop ñun douzième gaynde parce que ñoo àndoon 2000 2002 merci beaucoup. ah li ma lay wax li lépp ñi ñëpp yëkk ndax euh, tey naqar la bànneex la ndax à l'âge de 42 ans man Pape Boubou dama ko yar étant très jeune mu nekk jaraaf moo ko kon def naa ne xam naa ko ñu dëkk Tëngéej boole mu si Sénégal ak coupe du monde bi ñu àndoon maak moom en 2002 mu sigil Afrique sigil Asie ndax Pape Bouba li ñu dese nag ak moom mooy jël ko jébbal ko sunu borom ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla yaram te yeexañ may remercier tous les sénégalais ñëpp nag bàyyiwuma kenn jigéen góor ndaw mag taxawoon nañ ko tëngéej taxawoon nañ ko comme il le faut autorités yi nekk tëngéej yëpp ku ci ne la nga mën ak la nga mënul def nga ko may gërëm ñëpp. di sant ñëpp di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm ju nga xam ne fa mu fa mu jëm gënal ko fii mu jóge il est mort tout jeune nag xale bu ndaw 42 ans ndaw la mi ngi toll ci dugg ndawam ñun bu ñu demoon sax xëy na dañuy wax nañ doyal nañ 70 ans ko xas ba am doy na waaye 42 ans ñu ngi ñaan yoon yàlla mu dund ko may remercier Sénégal et surtout remercier le 12e Gaïndé ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci kanam. te man may papay xale yi actuellement te xale yi génération bi ma ëmb nii tey de 2002 bi ñu ci bare fekk wuñ ko waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla njaboot gi mu fi bàyyi yàlla ci yàlla teg loxoom li mu bàyyi Sénégal duñ ko fàtte à vie bi yoon boobu kenn du ko fàtte à vie à vie. mooy souvenir la jàpp si moom ban souvenir la ñu fàttali non bi bitam boobu avec Ala Diouf ndeysaan la la fa à gauche tout à fait à gauche jël jël poto corner. ñëw puus puusaat puusaat xool Pape Bouba Pape Bouba tàllal ko loxo bi mu dugal biibi te nam ko dugalee sax dafa tëdd yóotu bi te dama lay yëgal leen stade boobu mu dugalee bii bi stade bu bees tàq la ci la Sénégal footballé woon match amical bi contre Corée foofu la dugalee bii bi foofu la dugalewaat bii bi ñu koy ñaanal yàlla fu mu jëm yàlla na fa yàlla jëm ci daraje Sëriñ Tuubaa Mbàkke presse bi sant nañ leen gërëm nañ leen Sénégal daal ñëpp taxawu nañ ko daal ñun c'est notre Dieu Maradona mooy sunu Maradona ñun ñun les Sénégalais surtout et nous sommes fiers d'accompagner Pape Bouba jusqu'à son demeure. waaw waaw man kay mooy di ko ñaanal rek ndax Pape Bouba xam naa ne suma booy la parce que ci ci dama fekk dans l'équipe nationale di Sénégal que ma koy supporter xam naa caractère am ak euh, rigueur am xam naa ne man xam naa ko dama ko fekkir diggante man moom ak Henri kamara moo tax sama commentaire du yàgg quoi dama koy ñaanal rek di ko di ko di ko ñaanal lu bari bari loo xam ne ni yal na ko yàlla sunu borom xare aljana li mu fi def muy loo xam ne ni kooku daa day day éternel yàlla moo éternel mais am na ay yoo xam ne day éternel ndax yàlla moo koy def loo xam ne ni ay sët sëtaatam dañ koy fàttaliku donc kon ñun amuñu si dara loo xam ne ni mooy di ko gërëm rek di gërëm yàlla sunu borom mi nga xam ne moo ñu ko joxoon yóbbu ko yal na ko yàlla sunu borom xare aljana waaw njabootam naa leen njaboot bi fi bàyyi yàlla na njaboot ji màgg ba doon ko moom li mu doonoon ba doon ko plus waaw loolu rek lañ ci am lu ñu ciy wax quoi Sénégal yëpp ñu ngi koy ñaanal xam nga di ko sant di ko gërëm héros la daal héros man xam naa ci dara de par sa personnalité ak rigueur am waaw donc kon vraiment vrai héros la daal. ban souvenir nga ñu mën a wax. souvenir bi ma mën a wax ci Babou man euh, souvenir bi may ay anecdote lay joxe personnalité moom parce que man dama laan daan fekk seen groupement mooy regroupement yi ñu daan def en deux mille deux deux mille un deux mille deux boobu daa ñu ngi regroupé au Ngor Jarama comprendre baax ma la mais personnalité bu mu am par rapport ak des fois buy génn comprendre baax li ma la donc beneen caractère la yor donc da nga xam ne kii vainqueur la waaw donc loolu lay man image boobu moo may marqué ma sax sur le terrain mais en regroupement rek nu mu nu muy comporté woo. loolu rek loolu rek laa laay kii ci moom quoi parce que xam naa ne bu duggee match day def day day déjoué voilà voilà maa ngi ñaanal yéen ñëpp di leen ñaanal suñu journalistes yi di leen sant di leen gërëm douzième gaynde moom mi ngi fi et pour là pour toujours et pour tout le monde waaw ah, leeral point net gis ngeen vol bi mais nekk bés boo xam ne muy bés bu métti ci euh, sénégalais yi muy bés bu métti itam ci monde sport bi yëpp euh, gis ngeen ni ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo andoon ak moom fële ci 2002 euh, dundoon loolu nga xam ne moo doon coupe du monde bi tey bu yàlla defee jàmm jël bakkanam mu nekk xale bu ndaw am tamit aussi ay mbégte yoo xam ne dafa na ko pour Sénégal amoon ay jaloore yoo xam ne yi mu def tey li ñuy def mooy ñëw teeru ko teeru si kooram di ñaan yàlla aussi yàlla na ko yàlla jéggal te xare ko àjjana gis ngeen tey ñëpp yaram dam na parce que suñu sañoon tey dañu koy teeru si muy dund indi ay jaloore wala mu indi ay coupe yoo xam ne daf koy indi ci biir Sénégal waaye gis nga nit ak bëgg-bëgg yàlla ak dogalam mu nekk bés bu metti bés bu tiis gis nga tey monde sport bi yëpp dajaloo mais sport yi tamit ñëw nañu àndoon ak moom ba muy dund ba mu génnee àddina tam ñu ànd ak moom fas yéene ko gunge ci këram gi nga xam ne mooy këram gu mujj di ñaan yàlla aussi yàlla na ko yàlla xare àjjana. ban anecdote nga ñu mën a wax vite fait anecdote bu rëy keroog bi mu marqué deuxième bitim bi eh, ci coupe du monde bi gis nga mu def jaloolu ju rëy joo xam ne eh, fa tabarakallahu kenn ku nekk ci ñun. waaw euh, tey euh, bu ñuy wax si Pape Bouba euh, man en tant président fédération mënu ma wax ak ci moom ci li diggante dirigeant ak joueur parce que bi may ñëw xaj na yàlla def na arrêté woon na carrière internationale mais Pape sénégalais parce que li mu wonee xarkanam bi mu wonee ci euh, joueur ak ci nit moo marqué nit yi moo tax ne bi mu génnee àddina euh, amaana ñi ci yëguñu woon feebaram parce que moom dafa nekk ku discret ku humble bëgguloon sax nit yi xam euh, li ko jot mais bi ko nit yi yëgee gis ngeen riir bi mu am ci àddina si yëpp ak fii ci Sénégal sénégalais yëpp ko mettit la ba bi may ñëw nii tey ku nekk mu ngay yëkkati ay jaalam loolu parce que moom moo ko dunda dafa wane xar boo xam ne mooy xar kanam bi ñu namm si doomi Sénégal maanaam ci wàllu xare pour sa réew nga joxee ba jeex Papa euh, Bouba de 2000 presque ba 2004 euh, il était de tous les combats pour euh, le football sénégalais ci biir terrain bi tamit beneen xar kanam la doon am bu duggee si gaynde lay nekk ten mënu ko téye muy le four et au moulin mën naa ne moom moo ko doon gérer mais bu du yemee loolu. bu waree décisif moom mooy dem dugal yi coupe du li koy firndeel mooy monde boo xam ne ci milieu défensif mu dem dugal ñetti but ginnaaw ñetti but yooyu gëm naa ne bu di dugal contre France ak yi mu dugal contre yooyu bu ñu ko si dindee Sénégal du yegg mu yegg donc loolu rek war na dayooyam en tant que joueur mais bu génnee ci biti bi beneen beneen nit nga daan gis Pape boo xam ne bu sedd bu dal euh, doo xam sax ne star la du wane boppam ci dara mu ngi suufeel boppam yemale boppam ak ñëpp gis ngeen sax mu ko waxee léegi ak feebar bi yëpp mënoon na euh, yëkkati àdduna si yëpp ne Pape Bouba dafa feebar mais kenn dégg ko ba ni muy génnee àdduna donc vraiment def naa loolu la ko askan bi di fay tey pour mën ñëw ko rendre hommage te gëm nañu tamit euh, li mu wone mooy xar kanam bi nga xam ne bépp doomi Sénégal war nga war nga war a am ci boo waree engagé bu pour sa dëkk nga joxe wu ba jeex boo waree sëq say askan nga won leen yar won leen tëggin wan leen suufel sa boppa loolu la wone donc loolu rek jar naa ñu sargal ko tey te gëm nañu ni ñu koy sargalee yàlla noonu la koy sargalee ci këram bi mu koy dalal fële ci Rufisque. moo nekk le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal en phase finale de coupe du monde donc tey am na woy wu nga xam ne dootul fay ñu rëkkal ko junj mu équipe nationale 63 fois mu sol 63 fois maillot équipe nationale dugal fukki but ak benn fukki but ak benn ci milieu défensif il faut le faire. tey jii nag euh, mu nekk bés bu nga xamante ni gëm naa ni Pape Bouba dañ ko war a yëkkati euh, boole ko ci ñi nga xam ni moom la ñu tuddee les immortels les immortels mooy ñi nga xam ne dedd nañu mais seen jëf dafay des ba ilaa yow mi diin tey jii bu ñu toogee ba léegi ñuy waxtaane Jules Bocandé bu ñu toogee ba léegi ñuy waxtaane le président Léopold Sédar Senghor ëllëg dinañu toog di waat ki fi jóge tey muy Pape Bouba ndax jaloore ji mu fi def euh, mais li nga xam ne tey moom la ñu war a jàngat ci génn àdduna Pape Bouba man mooy ne war nañu am li ma tuddee un musée de l'international muy barab bu nga xamante ni dañ koy samp pour mandargaal ci ñi nga xam ne def nañu ay jaloore demal nañu réew mi fu nekk pour que génération yi di ñëw ku ñëw xam ne kii mooy Pape Bouba Diop lii la fi def ak lii ak lii kii mooy Jules bokonde lii la fi def ak lii ak lii kii mooy Battling Siki lii la fi def ak lii ak lii kii mooy euh, El Hadj Amadou Diaba c'est le seul médaillé d'or des Jeux olympiques kii mooy euh, Ami Mbacké Thiam moom mooy le seul médaillé d'or euh, des championnats du monde ñu mel noonu da nga leen di immortaliser par un musée et je pense que le musée de l'international war na judduwaat beneen bi ci des moo di ni tey toll nañu fu nga xamante ni nii képp ku musa a sol maillot équipe nationale képp ku mus a jëriñ réew mi war a war nga am màndarga bu nga xam ne foo dem ñu jox la gëdd jox la cër bi biñ la war a jox bu dee ci stade la waratuloo fay bu dee ci dem kër doctor la am na lu nga xamante ni nii état war na ko mën a jël en charge pour yow pour service rendu à la nation Il ne s'agit pas d'élever les gens au titre de, euh, de, de, de, chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier de l'Ordre national du lion. Ça, c'est beau à titre posthume. Mais je pense que pendant leur vivant, war na am lu nga xam ne nation bi war na leen ko delloo njukkal ba fu ñu toll ñu ràññee leen xàmmee leen jox leen seen gëdd jox leen seen cër. Et c'est ça euh, euh la bataille qu'il faille mener, qu'il faille mener parce que il faut qu'on aille directement vers ce qu'on appelle le statut de l'international. que l'international ait un statut que l'international ñu jox ko gëddaam ba fu mu dem ci àdduna wala fu mu ñëw ci Sénégal ñu xam ni kii kat mus na bégal réew mi mus nañ ko rëkkal euh, yëkkatil drapeau national mus nañ ko rëkkal hymne national je pense que on doit au-delà du décès de Pape Bouba aller vers la valorisation de l'international en tant que sportif euh, Pape Bouba déjà li gën a marquant ci moom mooy joueur bu gëmoon boppam la euh, déjà boo fàttalikoo ci jamono il n'était pas titulaire en équipe du Sénégal mais patience am daf ko jël daf li ñuy wax prendre son mal en patience da ko def toog ba heure am jot mais lu mu daan faral di wax moo di ni bis bu ma duggee ci équipe bi du ma génnaat te effectivement bi mu duggee ci équipe bi ba bi muy raccroché génnaatul ci équipe bi donc ça veut dire quoi que nit ku gën a ku gëm boppam la et puis la valeur n'attend point le nombre des années moom ak Henri Camara bi ñuy démarré au Jaraaf de Dakar ils étaient ñu déclassé leen yóbbu leen équipe senior ñu def fa quelque temps Henri dem Suisse bu ñu fàtte ni Henri Camara dem Suisse moom moo indi dem Suisse Pape Bouba Diop ndax proximité bu mu am te fu mu dem day wax ne bàyyi leen xel Pape Bouba mais Pape Bouba c'était un exemple de discipline tactique un exemple de discipline dans et en dor du terrain musoo ko dégg ci frasque musoo ko dégg ñu ne Pape Bouba moo fi def lii wala fubal nañu ba pare mu def lii fubal bu paree ci football doo ko déggaat ci leneen lu dul ci football même bi mu raccroché ay godaasam di ñëw Sénégal di delluwaat ñun journalistes yi chaque 31 mai dañuy soxla Pape Bouba mais est-ce que mus ngeen ko am interview non on l'a pas parce que est discret et discrétion boobu moom la àndal ci feebaram feebaram deux ans mi ngi ko tëdd. mais loolu est-ce si c'est normal parce que c'est sa volonté il y a des gens yu nga xam ne. ils vive dans la dignité, ils meurent dans la dignité. Ils vivent dans l'honneur, ils meurent dans l'honneur. Pape Bouba n'a pas voulu faire de publicité autour de sa maladie. C'est lui qui a voulu que les gens soient discrets. Il a donné des ordres à sa famille pour qu'elle ne bañ a wax ne dafa feebar. am na ñu ko yëg ñu nga xam ne ay journalistes la ñu benn ci Gomis bu Walfadjri yëg na ko mais Gomis est proche de la famille mais on leur a demandé de ne parce que moom ci sutura la mus a dund ci discrétion la mus a dund soxlawul ku ko ne ndeysaan et demoon na fu nga xam ne buñ ko yëgoon ñun dinañ ko yërëm ndax ki nga xam ne tànk yi mu yor ci la bégal Sénégal yëpp tànk yi mu yor ci la daw ay kilomètres au Sénégal sur les rectangles verts d'Afrique sur les rectangles verts d'Asie Pape Bouba a parcouru combien de kilomètres dans sa vie lu mu am tànkam moo ko ko amal lu mu am ci teraanga ay tànkam moo ko ko jox nga dem ba nekk ku nga xam ne ci chaise roulante nga toog c'est ça la vie taxawaay bi dafa sax amul bay doy taxawaay bi ñu war a taxawu l'international sénégalais amul je l'ai dit dans une interview ça m'a marqué et ça m'a ma ñëw Stade Demba Diop ñu téye Roger Mendy ci bunt bi Stade Demba Diop boobu bi ñuy football contre Zimbabwe ñu gëj coupe d'Afrique des nations à Asmara 68 ñu war a daje ak Zimbabwe en 1985 stade bi fees dell noir de monde Roger Mendy moomu moo doon football libéraux nit ñi ñëw di ko seetaan moom muy ñëw di dugg ci stade boobu nga xam ne moom marqué na fa l'histoire du football sénégalais ñu koy téye c'est inadmissible je suis allé au stade Lat Dior Amadou Diop Boy Bandi capitaine de l'équipe du Sénégal en 1986 ñu yóbbu ko géttu bay ay nit yu nga xamante ni nii mosuñu jëriñ dara football takk seeni i cravate toog loge officielle keroog dama aalu seen kaw ni leen yéen mérité wu leen toog foofu Amadou Diop warul toog fii parce que Amadou Diop a servi la nation il était capitaine de cette équipe du Sénégal pendant plusieurs années et aujourd'hui moom muy ñëw pour seetaan match équipe nationale ngeen koy yóbbu gertu bay ça veut dire qu'il n'y a pas de la reconnaissance et ce jour Sega Sakho m'a dit clairement que dañ leen a jox benn quota billet bu nga xam ne matalu leen man leen yéen waru leen a yor billet di dugg stade waru leen yor invitation di dugg stade da ngeen am lu leen war a mandargaal stade Sénégal waru leen ci fay ku jouer équipe nationale rendre les honneurs au pays ba dem ba tekki say godaas kenn waru la fayloo d'accord ci kaw ñoom war ñoom place sax benn stade ci stade benn place boo xam ne pour ñoom lay nekk. mais absolument il faut qu'on honneur. aujourd'hui Emmanuel Petit du dem France ñu koy ñu koy téye. Didier Deschamps du dugg fenn euh, France ñu koy téye. et cetera et cetera aujourd'hui euh, tey Didier Drogba xalaat nga mu dem euh, Côte d'Ivoire ñu koy téye ci buntu stade. Samuel Eto'o xalaat nga mu dem Cameroun ñu koy téye wala fenn ci Afrique alors les internationaux sénégalais. il faut que ñu delloo leen seen cër jox leen seen gëdd ñi nga xam ne comme man la ñu yem mënuñu orienté mënuñu dóor mësuñu dugal bi takk ay cravate toog ci ay tribune c'est pas normal il faut qu'on donne au à l'international sénégalais son vrai delloo ko gëddam bi mu war a am mu ngi mel ni un soldat qui tombe sur le champ de bataille on doit lui rendre les honneurs sigil digaale euh, famille bi surtout jabar ji ak euh, ay mbokkam Euh, di ñaan yàlla vraiment xaaree ko àjjana euh, Bouba nit ku baaxoon la nit ku baax la euh, nit ku bëgg réewam doon patriote boo xam ne mën naa wax ni kenn mënul quantifier degré patriotisme bu Bouba Diop comme na ma ko waxee sànq rek naqar la naqar boo xam ne tiis la tiis bu metti waaye ñu ñoo xam ne ndogalu yàlla yàlla lu moom lu mu bëgg rek ñun ñu ñu ñàkk. lan waaw booba moom mën naa wax lu bëri ci moom. Euh, parce que mën naa wax ni que dafa ñëw fekkee équipe boo xam ne équipe bu bu constituée la ba pare euh, mu nekk xale euh, fekk fa fekk si ay ay magam lu ma mën a wax ci moom mooy que. premier match international bu mu def ak équipe A bi mooy après midi boobu fële ci ci Bamako bu ñu doon joué demi-finale contre Nigéria mën naa wax ni que ñu Sénégalais yëpp fa nañ ko fa nañ ko découvrir euh, mu fekk euh, match bi nekk match bu metti bu doon def euh, xaw ma trente cinq degré quarante degré ñu débuté woon match bi vraiment ci conditions yu métti buuba dugg si mu fekk ñu ñuy perdre un zéro Pape jël carton rouge ñu joué dix contre onze pratiquement pendant cent vingt euh, mënoon nañ xalaat ni que xale la bu ñëwee dina tiit wala dina ragal euh, au contraire euh, dégonflé wul wane ni que gaynde la foog naa but égalisation bi moom moo ko dugal ba pare ñu gagné 2-1 contre contre ba ñu dem final. waaw lu nu mën a wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ñaanal gaynde bi muy Pape Bouba Diop yàlla na ko yàlla xare àjjana ndaxte jàmbaar la nit ku baax la woon. nit la ki nga xam ne def na li nga xam ne ci Sénégal kenn mënu ko fàtte kon peuple Sénégal yëpp tey ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ci barke Sëñ Touba. waaw c'est normal ñu ñëpp ay doomu Sénégal la noonu ndaxte moom da doon porter drapeau Sénégal kon ñun ñëpp la doon représenté partout dans le monde kon boog ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xaajam parce que gaynde la woon te ñun ñëpp ay gaynde noonu te dafa représenté Sénégal fu ne partou dans le monde surtout ndeysaan maa ngi fàttaliku premier match Sénégal France bii boobu mu dugaloon loolu duñ ko fàtte partenaire yàlla yàlla xare ko àjjana bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam grosse perte surtout pour le Sénégal grosse perte pour le Sénégal une digne fils du Sénégal jour de ce, de, de ce football sénégalais-là. Vraiment, euh, on est triste, mais c'était notre devoir de venir euh, l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Euh, il mérite beaucoup, d'attention, il mérite tout ce que le peuple sénégal, tout ce que l'État du Sénégal fait, a fait pour lui. Pape Bouba Diop mérite ça. Donc, on présente nos condoléances à toute la famille proche de Pape Bouba, on présente les condoléances à tout le Sénégal. On présente nos condoléances aussi à, à tout le monde du football sénégalais. Euh, mën naa wax ne man du ma jooy génn Pape Bouba mais damay célébrer vie am célébrer lu mu def lu baax Sénégal et di wax xale yi tamit ku jàngul ci lii mënoo jàng ci dara ndax lii rek a am solo moo di boo fi jógee nga am lu mel na ni Pape Bouba du ñu def lu dul euh, wax ni famille am vous pouvez être si moom ndax li mu waroon defal Sénégal yëpp defal na ko léegi nag Sénégal moo des di ko defal moom ak famille am li may wax rek moo di bu nu fàtte mémoire Pape Diop Bouba bu buñ ko fàttee ndax euh, liggéey na fi lu nga xam ne kenn mënu ko fàtte et di wax ni tamit ñun suñu warugar ñun euh, moo di. li mu defal Sénégal tey jii ñun ñu jàngal ko xale yi nga xam ne tey jii ñu ñooy seen ay ñooy seen ay kilifa si football. Mhm. jàngal leen ko bu ñu mun a dem si Coupe d'Afrique bi Sénégal yëpp boole seen bopp boole seen xalaat boole seen doole ñu dem Cameroun gagné Coupe d'Afrique bi pour ku mel ne Pape Bouba Diop ku mel ne Jules François Bocandé at ku mel ne Bruno Metsu Mansour Wade ñi ñu fi jógee ñëpp depuis 2002 ak ñeneen ñi leen fi topp. Mhm. El Hadj damay faral yi ngeen de l'international bu nga xam ne ñëw xam ne fii Pape Bouba nekkoon na fi lii la fi def Bruno Metsu jaar na fi lii la fi def Bocandé jaar na fi lii la fi def et cetera est-ce que loolu tey jotul état bi samp un musée de l'international pour immortaliser votre œuvre. bien sûr jot na jot na état bi def ko et je crois que président de la république euh, man conseil am laa dinañ ci waxtaan. Euh, noonu loolu lay jëriñ looloo tax tamit xale yi ji xale yi ñëw war a fas jom war a mën a fas jom mhm. ndax lu amul loo xam ni ñi ko defoon démb ñoo ngi fi di tegee mhm. du jëriñ dara xëy na peut-être que loolu noonu manqué gagné woon Coupe d'Afrique mais je crois que li ngay wax ni Malick mooy li am moom mooy li dëgg nit ki buy dund tamit li nga wax ni teg si tamit nit nit ki buy dund danga nga koy jox la moitié li mu moom bu demee ba dem nag nga delloo ko beneen moitié bi famille am et je crois que noonu la Afrique noon la noon la dëkk di demee euh, musée boobu heure boo paree pour pour pour waxtaane ko man je suis prêt à t'accompagner et je crois que ni ay ñu mel na ñoom Jules François Bocandé dañ leen war jàngale si école yi ay ñu mel ne ñoom Bruno wan war na leen ni leen tey ji am na ay ndaanaan yu nga xam ne jële jóge woon nañu seen dëkk ñëw fii pour gën bëgg dëkk bi yeneen sénégalais yi jàppale leen et pour finir rek du ma wax lu dul euh, jeexale ni euh, pab Bouba moom tey jii duma jooy demam ndax man damay damay dama dama dama kontaan ci mu def ndax lii moom moo am solo te lii lan la ko doon ñaanal li ma koy ñaanal rek moo di yàlla na suuf bi ñu koy dugal suba mu sedd si kawam. ñaan gi di ko fekk ci bàmmeelam et sénégalais yi aussi bañ ko fàtte et di remercier aussi tous les sénégalais parce que depuis lii xew ba léegi gis nañu sénégalais yëpp bokk nañu nday bokk bàyyi nañu continuer nii bokk nday bokk bàyyi liggéeyal suñu dëkk continuer ni jàppandoo àndal Aliou Cissé avec toute l' nationale xol yi bokk benn ñu dem Cameroun gagné ko rien. donc looloo tax tey supporters yëpp mënu bëggoon nañu ñëw waaye dañ ci jël quelques supporters euh, euh, suñu suñu suñu suñu doom koo xam ni euh, c'est le pur produit du Jaraaf donc nekkal ñun donc euh, donc moo tax tey jii ñun ñëpp ñu àndandoo ñun supporters yi ñëw di ko di war ko sargal waaw. maa dégg nga kàddu yooyu ñii nag ñooy ASC Jaraaf de Dakar ndax Pape Bouba jaar na fa tey Pape Bouba mos a jaar rek ñu ngi koy sargal te xam ne tey lii rek lañ ko desee ñaan ñi ngi ñaan daal fi mu jëm gënal ko fi mu jóge yàlla na dee di noflaayam yàlla na xippi àjjana ci barke Yonent bi leen euh, Lo bi nga xamante ni dégg nga moom mooy président des supporters donc dafa am lu mu kii te équipe bi tamit dañu dem à l'extérieur donc nekkuñu fi moo tax ñu bari dégg nga ma teewuñu donc loolu moo tax ñu ñëw les supporters pour sargal encore une fois euh, Pape Boubou Diop. donc euh, nekk na xale boo xamante ni fi la defee petite catégorie fi la defee léppam donc ñu yar ko jàngal ko jàppale ko mook Henri Camara ak xale yëpp. donc ba yàlla def euh, li mu def kon nag ñun li ñu li ñu war a def mooy ànd ndox moom euh, gunge ko ba yàlla ba jébbal ko